lu tolloog ñaar fukk ak ñaari ndaw yu wann lor ci bërëb yu école yi ni jàngee moom la ñu nemmeeku fii ci diwaanu iya bu Pikine Géejawaay ki xam la loolu nag moo di xam la loolu di docteur Ibrahima Ndiaye bu iya Pikine Géejawaay fu mu toll ni mi ngi fu ñu toll ni ñu ngi nekk si ñaar fukk ak lu teg si grossesse yi ñu am waaye itam ñu bàyyi xel ne fu ñu toll ci at bi taxul ñu mën am chiffre yëpp parce que chiffre ñu ngi koy amee en fin d'année la plupart du temps pour année bi passée année académique bi passée ñi ngi am eh, téeméer ak fukk ak ñaar eh, xale yu amoon eh, grossesse waaye ñu seetu si ne ñi ci ëpp ñu ngi nekkoon ci saam bi ngir dakkal sa teel yi mu ndaw yi ci daara yi diggu dóomi tax ba iya bu Pikine Guédiawaye lekkolo ak réseau des femmes enseignantes bu Pikine ànd ci ak kuréel gii di FAWE amalon ak leul ngir waxtaan ak ndaw yu jig ci jafé jafé yi nek ci sëy bu teel ak gàllankoor yi ci nek ki xamlé loolu moo di job inspecteur d'enseignement fi ci Pikine. tey jii donc dañu ñëwoon doon waxtaan ak communauté bi ci benn thème ñuy wax euh, les dangers des mariages d'enfants euh, comme obstacle à l'éducation des filles waaw liñ ci mën a wax mooy mariage yu teel yooyu obstacle si jàngu xale bi parce que souvent xale yi bu ñu ko marié dafay am ay pesanteur yoo xam ne pour mu continuer jàngam day jafe pesanteur yooyu peut-être bari na duñ mën a lister fii nii lépp mais bi ci ëpp solo moom mooy bu xale bi ëmbee souvent bu ëmbee pour mu mën a allier grossesse ak jàng lu jafe-jafe lay nekk ba ñu bari ci xale yi nga xam dañuy am grossesse dañuy finalement abandonné buñ abandonné wul aussi dañuy redoubler sen classe que statistique ñu ngi wone ni se 6 xalé yi nga xamné ñoy ñooy entre ñooy ñooy grossesse ñoy mujjé continuer sen sen seen jàng donc loolu day nekk élément boo xam ne aussi day bloqué xale yi ci seen di Mariama Sow mi teewaloon ayemu dëkkee di dànkaafu waajur yi ngir ñu gën a xal xel ci xale yi ci seen jàng ndax sëy ëmb ndaw day ànd ak métit euh, donc jàngat bi ñu ci am rek ci mariage forcé en tant que point focal institutionnel avec euh, madame Diop Awa Baldé qui est la chef de service de de l'AEMO de Pikine vraiment nous faisons pour les parents puissent savoir que ak waajur bañ a mën a xam ne place su xale surtout xale xale bu tuuti du place su place am du ci sëy bu forcé ak sëy bu teel donc loolu du du du du kiyam parce que du ko aar ci lu bari day tax mu teel a bàyyi école teel a bàyyi jàng te loolu euh, waajur yi war nañu xam ne euh, xale bu jigéen quel que soit âge mu war na am benn dara lum la mën a dimbalee ci bu jàngale yeggali njàngam si teeyu bakkanam te duñ ko force ci mariage ba heure ba mu ko liggéey rek mën koo def ci ci ci dana ko mën a tey ci sëy bi dana ci précarité ci précarité moom mooy dana mën a tax mu mënal boppam te te te euh, ci ci wàllu développement ci yaramam aussi dana nekk la nga xam ne du ko indil gàllankoor bu fekkee ne teeluñu koo maye. Kajatu Ndiaye moom di élève ci lycée bi di Lamine Niass moom rek mi ngi dellu di ñaax moroomu ndawam yu jigéen ñi ngir ñu gën a mën a concentré wu di jëm ci seen jàng. kon daal foofu moom dama leen di conseiller donc ndax de nos lu ñuy gis li fii du lu wor moom. jigéen ñi da leen di gis c'est que farantu bi heure bi dafa bëri te loolu da leen di yàqal seen éducation ba pare boo nekkee di farantu nii problème bu fa amee jamais de la vie ñii di jugé ko góor ki ku jigéen ki rek la ñuy wax toujours ku jigéen ki la ñuy wax kon léegi damay conseillé sama moromu jigéen ñi lañ moytu dool bu baax ndax seen avenir lañuy nekk di foowee